voilà boo ñun dañoo xëy un jour rek moo chinois yi ñëw ne dañoo dañoo mooy pour Someta dañu ñëw jënd loo terrain bi nekkoon fii après ñu laaj leen luy xew ñu leen dañuy dañuy dañuy def miir miir de clôture après ñu laaj leen pour lan la ñu ne pour pour entrepôt lañ koy def léegi bu ñu commencé nag ñu gis ne fii dañu waroon fi bàyyi mbedd léegi commencé bàyyi wuñu fi mbedd. bu ñu leen ba ci sous-préfet nag après bu ñu ñëwee ñu ne dañuy bàyyi 7 mètres. mais pour baye pour ñëw pour nous 7 mètres yi dañ ñëw tout juste def ko pour ñaari kër yi rek fii ak dans ce cas dañuy créé fële impasse fii impasse dans ce cas soo duggee fële ci buntu principal bi soo dugg ndox su ci biir du am fu mu ndox la waaw quartier ça n'explique presque instant yi quartier tax puisque plusieurs fois amuñu solution parce que soo ñëwee côté bari doo gis sax doo xam ne fii sax am na ay kër te gis nga miir lu mu kawee lii mënul dëkkandoo ak ñii mënul nekk bon dans yi xam nga usine nag dëkkuwaay moom presque àndul waa loo tax moo vraiment suñu sañoon ñu bàyyil ñu foo xamante ne dañ leen nekk en sécurité xam nga soo lii yoon yoon bi daa war yoon du pour deux maisons rek day day am entrée ak sortie léegi nag amul sortie nag te su amul sorti ndox mi su ñëwee fii lay boole ko également sinon latrine nos fosses se remplissaient. Nous n'avons pas possibilité d'interpeller des camions de vidage pour vider nos fosses. Il y a une cohabitation malheureuse que nous devons forcément vivre. Nous devons forcément la vivre parce qu'une entreprise pareille émet des gaz, émet des gaz qui par moment sont des gaz toxiques. Par moment, même les populations du Sébicotan se révoltent pour ces gaz que ça émet. Donc nous serons riverains à moins de 7 mètres et qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, on est emprisonné et complètement enfermé dans un circuit que nous ne pensons pas pouvoir sortir sans révolte. Révolte pourquoi Parce que toutes les autorités qui devraient soutenir les populations que nous sommes sont restées muettes. Sinon, interpeller l'autorité. Si l'autorité aujourd'hui ne réagit pas, ce que nous pouvons faire, c'est barrer la route nationale, s'attaquer aux édifices ou bien s'attaquer à tout ce qui appartient à la République. Parce que ça fait partie de ce qui nous appartient, mais ce qui nous appartient et ce qui devrait nous gérer ne nous gère pas loyalement.